xam nga le 17 bi ñu génn moo doon marche bi nga xamee ne moo andi woon coow li euh, ñoom nag man nag li ma ci jaaxal mooy li leen yóbbu flagrant délit man nag yooyu maîtriser wu ma ko waaye euh, dañu bi ñu génn di dem te man gisuma ko ci génn sa buntu kër lu mat 15 mètres. xaw ma nag lu tax xëy na dañu bëggoon a fipp dem ñu téye leen ñu coow ak yu demee noonu ñu jàpp leen daat leen di euh, yóbbu ci fi nga xamee ne moom moo di police te pourtant Ousmane Sonko génnoon na mais dafa génn wax ak policiers yi génnaat def et cetera bëgg a dem jumaa ji et na peut Ousmane li ma jàpp ne li tax jàppalu ko xëy na manif xëy na peut ne xëy dafa bëgg a dem ci ci kii bi physiquement euh, dafa bëgg dem ci manifestation mais ñenn ñi dañoo génn nii taxaw après ñu mel na ñoom Déthié Fall xëy na peut-être dañ leen bëggoon empêcher ñu bukkante gars yi gars leen mais de toutes les façons man li ma jàpp ci àtte bi mooy xam naa ni tôt ou dañ leen di mujj bàyyi jàpp naa ne defuñu loo xam ne lii jar nañu leen di téye a di gën a di mi kawar euh, surtout que tension bi fi ñu toll nii yi maintenir société civile bi di wax fii oui ou mën nañ sax tenir si élection y a mais mu nekk dans la paix boo xam ne bii jàmm ju ñëpp dañ koy séq mais lu jiitu loolu ñu toog waxtaanaat xoolaat yeneen nan la mën a gën a arrondir les angles a parfois dafa war a dawal yërmande ñu jaaraat ci yoon wi ñëpp bokk ci élection yi kenn ku nekk dem sa yoon. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. waaw am na solo Nicolas li ci jaaxal nit ñi mooy renvoyé yi ñu koy dàq ka dàqaat ndax du du procès Euh, amee na solo noonu xam nga projet bu ñu renvoyé léeg-léeg euh, xëy na mu doon mbirum enquête wala mbirum nangam mbirum nangam waaye manifestation moom li ma ci tàmm gis ci Sénégal hmm. ñi ngi ci jàppee ñu mën di doon bu dee dañu leen jàppee euh, yooyu ñu leen di jàppee aate hmm. ba ca topp bu ñu leen ci téyee bàyyi leen ñenn ñi sax daanuñu jot a dem procès mais dañ leen di téyee ba ca suba ga ñu xëy suba bàyyi leen ndax dañoo génn ci manifestation boo xam ne waruñ cee génn léegi nag olofay wax ne ku ñuy jiiñu ndëmb kenn warulaa fekk ngay seeñoo yeele xale c'est-à-dire bu fekkee waaye yeewi askan wi ñoom dañoo génnoon wax ni ñooñu ñu jàpp li ñu leen jàppee ay calcul la ci élection yi mm-hmm. maanaam ay tête de liste lañ jàpp Ahmed Aïdara moo nekk tête de liste bu département bu Guédiawaye Mame jaara Fam moo topp ca ka nekk Pikine sëñ Bara Dolly mais moo nekk Mbacké Déthié Fall mooy dem di lijjanti ji kayit yéeg a ñëw léegi yooyu bu fekkente ne noonu la demee ci ay calcul politique maanaam renvoyé bi da ko du dàq da du dàq loolu définitivement wane ne loolu taxut te bu fekkee jàmm réew mi lañ bëgg ba nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi wax naan réew mi na am jàmm réew mi na am jàmm réew mi am jàmm nañ teg yëf yi ci suuf nañ teg yëf yi ci suuf léeg-léeg itam ki ndengeeñ itam téye ba mu dëgër day euh, ngir mu bàyyi loolu itam dafa bokk ci li indi jàmm ci réew mi tey jii bu ñu waxee waa yeewi ni leen alarba bu leen mars wala euh, nañu na euh, nañu def lu indi ak dal ci réew mi te ñiñ taxawaloon combat bi nekk ci biir kaso bi yow nga jekki-jekki bëgg ne bàyyi naa man man yëngalatuma damay bàyyi mu sedd loolu day mel ni dangaa sacrifier ñee toog ci bitti jàpp naa ne négocier jàmm bi ñuy dox ak di ko wut yoon def liggéeyam ci ñee déglu leen bàyyi leen ñu dellu mooy li mooy li gën a jaadu beneen bi ci def dañoo wax ne ñoom ay député lañ am na ci ñaar ñoo xamante ne ay député lañ fi mu nekk nii eh, député yooyu nga xam ne ñoom lañ jàpp assemblée national ba pare ne ci yàlla nga xam ne day mel ne déggut déggut dara ci li nga xamante ne moo xew jëlalu leen paar eh, maanaam jàppalu leen tànk loolu itam eh, leneen la loo xamante ne nii moom lay nuru ala kulli al renvoyé bi bokkut ci li nga xam ne jàpp nañ ne mën naa indi jàmm social biñ bëggoon réew mi dal Euh, ba nga xamante ne danañ arrangé toog waxtaan nga man ni ñi bàyyi leen lii bàyyi leen lii renvoyé beeg bàyyi leen ca kaso ba moom bokku ci li nga xam ne da ko indi mhm. mais situation bi ci boppam euh, ni ñu ko mën a jàngatee à quelque euh, élection yi ba léegi c'est maintenu pour le mois de juillet mhm. ah on est en juin ba léegi ba léegi dans un mois pile poil normalement Sénégal war na am élection législative et à un mois des élections normalement le climat politique tàng na jër absolument euh, absolument parce que pratiquement sax boo seetloo ba seetlu daa iman élection bu daan jublu si nii lay xaw a mel bii nag bii yoon nag moom dafa am ay jafe-jafe yu ci am mooy ñi nga xamee ne ñoom ñaar ñëpp waruñu ñu a dem ci élection yi ba noppi mm-hmm. euh, doomu guré bi ñu ŋàdd ko ñaari ŋàdd yoo xam ne yi daanaka tolloowuñu mm-hmm. ne bii mën naa dem ci wet gii kii mën naa dem sans les liste titulaire bi bii mën naa dem sans suppléant historiquement parlant bu fekkee dañoo xool ci histoire politique gu Sénégal ñu ko fi fekkee lu mel ni daanaka guléet ci ay Macky Sall la mas a amee. ci présence Macky Sall ci régime lu mel ni amee wala boog ñun fàttaliku wuñ ko. alors ce qui fait que loolu nag dafa am ñoom daf leen a frustré leen metti ñu taxaw temm na ñoom quel soit alpha su fekkente ne waa Yewwi euh, seen liste titulaire bi bokkul ci askan yi élection du fi amee ñii ne nag élection yi ñoom tamit dina fi amee danañ ko taxawal te xamaguñu fu ñu jëm d'ailleurs le 29 bi ñu war a demaat marche ak yu demee noonu moment bi nga xamee ne euh, fi ñu toll am na ñoo xam ne ñi ngi buur mi ngi leen teg loxo mooy moom lañ tuddee tension politique fi ñu toll nii est et d'ailleurs même la France gis nga seen opposition bi li ñu wax am na ñoom ñoom Mélenchon Jean-Luc Mélenchon li nga xam ne wax na ko ne daal euh, Sénégal léegi dañuy salfaañi affaire démocratie ak yu demee noonu ba tudd fële ca France te ñoom gis nañ ne suñu démocratie bi dafa xaw a salfaañoo boo kiyee ni ñu ne la tip de loolu nag yooyu yëpp nag pour ñu am amal ci saafara mooy nan damaa gis man ba coow li tàmbalee ba léegi toog boo xam ne bi ñu yore wàllu politique bi toog nañu waxtaan ko qu'il soit ñu nekk ci pouvoir bi ak ñu nekk ci opposition bi ñu seet nañu def ba trouver une solution loolu ba léegi amul hmm. kenn ku nekk fa nga xëcc da faa xëcc léegi nag hmm. su nee ca weeru juillet wii ba campagne bi tàmbali hmm. ñii dana def campagne ñii duñ def campagne xeex dana am xeex du am te yàlla bu xeex am loolu la kenn xamagul lu muy moom la ñuy létt yooyu la kenn mënagul a firi fi mu toll nii président Macky Sall moom li mu jàpp ñu wax mooy élection yi du fi amee ah léegi am na ñu ne kilifa diine yi war nañoo wax coow li na kur ah léegi nañ bàyyi li na ci kanam rawuli bët hmm, parce que mbir mbir dee toll foo xam ne fi yow alaal bi boo ci wax sax bu yàggee doo euh, kilifa diine yi sax ñu ngi commencé di waxtaan ak euh, njiitu politique yi parce que bu ñu tolloo ci un mois des élections ba pare tension bi toll fii euh, xalaatuñu kon campagne électorale bu naree démarrer ci yan condition lay démarrer waaw léeg-léeg loolu day am ñu ne kilifa diine yi nañ wax léeg loolu moom dama ciy bàyyi noonu rek ndax xam nga ñoom itam léeg lu ñu leen wax tooñ leen waaye léeg-léeg itam ñu soxla leen soxla soo xam ne mënta ñàkk ndax dañ ñoo jaboote ñun ñëpp moo tax bi président de la république demee Tiwaawoon euh, dem googu rafet lool ñu ngi ndokkeel bu baax njabootu Cheikh Sidaaji Malick gépp ñaan hôpital boobu mu fa naal itam borom bi àggale ko ba mu àgg kàddu yi ñu yëkkati jox ko ko kàddu yu dal xel la rawatina ci moom ci moom personnellement moom kàddu yu dal xel la ci moom ndax toog kilifa yu toll noonu ñun la dañ laa bëgg toog ak kilifa yu noonu ñun la yàgg nañ laa ñaanal loolu moom rafet na waaye li ko wax ne ko bul tontu jàpp naa ne loolu moom wax ju rafet la waaye président nag na am nu mu ko déggee na dégg na ko dégg déggin woo xam ne déggin wu muy taawil la ba mu sori mm. parce que tey man nga maa fekk ma toog nga ne ma bul tontonte fekk ki may tontonteel waal wàllu tontu rek la waaye baay bi nekk ci biir këram njabootam am luñ soxla mu war a génn leeral leen ko ba noppi toog ci ruqam nag ne du ma tontu parce que su tontoo damay yem ne yéen mën naa baña tontu ci ay kaddu wuñ président def conférence de presse wala live di tontonte di téesante ka dàggasante waaye bëgg nañ nag mu tontu ci ay acte li nga xam ne moom lañ ko dénk maanaam ci réew mi lépp loo xamante ne agsi nañ ci ba ay nit génn di ci wax ba mat nit am ci ñett ñu faatu am mbooloo mu génn nit ñi naan manifester bi jaar na yoon ak jaarut yoon mm. loolu bu fekkee moom am na am na benn benn acte yu mu mën a posé yoo xamante ne mooy tontu askan wi ci tontu luy indi jàmm ñi ngi koy xaar ci mu tontoo noonu moo tax ma ne mm. li ko sëñ Babacar Si Mansour wax ne ko bul tontu mm. euh, bul tontoo niñ lay ni niñ lay cokkaase waaye na nga tontoo ni nga toll ni nga toll mooy parce que tey jii gis nga Nicolas buñ naan tey président de la république tey ba respecté ko maanaam euh, dafa defe naa bañ ne président institution la li ko def institution loolu moo def consi maanaam constitution bi itam mu nekk constitution hmm. ñoo bokk benn bagaan guñ nekk bu fekkee kiñ ne institution la ba ñëpp wormaal ko hmm. euh, li muy doxal boo ko nattee ci euh, ci maanaam tey constitution bi dëppoo wut ak noonu hmm. da dul xam mbub mi ngi koy solal man mbubu ma donc man mbubu lay doon doo xam xam mbubum par par loola wala déet moo tax tontu askan bi moom ak fii réew mi toll ni nga xam ne ñëpp a ne ñun ñëpp a Euh, euh, man tey li ma jot ci ay ci ay audio ak nit ñu ma woo di ma wax ne ma marché bi war a am le 29 na ngeen def seen kéemtulaayal kattan ba marché bi bañ a am dañu koy wax pourtant mën naa am ñu ci bari sax ci opposition lañ nekk farandoo yeewi lañ mais dañoo gis dëkk bi ni ñaa ngi yeew seen xar ci mbedd mi dañoo gis ne xale yi daan dem ci marché bi ñenn ñi ñi ngi wékkoo seeni mbuus di ambulant di jaay ñenn ñi ñi ngi ci problème mu tabaski téyeer yaa ngi ñaw am na ñoo xam ne ci lañ nar a ñàkk seen liggéey ndax danañ fa bàyyi seen liggéey dem marché ñëw am jafe-jafe ak seen patron mais réew mi bu tollee foofu ba toll foofu léegi dañuy seeraan askan wi ñoom ñuy fajal seen bopp di régleel seen bopp di stressel seen bopp moo tax tey jii damaa yaakaaroon ne man gars yi bu ñu leen attee dañ leen di bàyyi ñu ñibbi bu ñu leen bàyyee ñu ñibbi ñu ubbi buntu bu waxtaan liste bee nga xamante ne moom la conseil constitution wax ne na maanaam na dem muy suppléant yi ñu bàyyi suppléant yi dem ñeetim seenub liste euh, euh, euh, titulaire dem ñu dem ci ay élection yi jàmm hmm. buñ ci jógee nag lu ñu war a régler ñu régler ko jàmmale ñooyu ci penc mi mais kilifa gu ngànk fi mu ngànk ne du ma bàyyi tëju ci néegam ñu ne ko bul tontu hmm. boo tontoo da nga yem a gaa yi nga jàpp ne ñàkk tontu gi mooy ne patt pattaaral ba pare wàccee say alkaati ci mbedd mi réew moom bu tàkkee ku ci génnee sab loxo dalay wax a neex waaye yaataal sam réew hmm. ci jamono jooje oustaz Maodo Faye gis nañ li fi xew semaine bi ñu génn mooy am na lu opposition bi woote woon on a vu que les Sénégalais dans leur majorité ont suivi cet appel donte baax naag baaxul nii laak nele la mais li leer ba leer mooy cinq minutes durant euh, gox yi goxaat yi ci Sénégal yëpp tàngal nañu par rapport ak loolu loolu warta nekk signal bu fort par rapport ak sénégalais yi li ñu bëgg mais xam nga signal fort moom euh, pour maanaam rëms maanaam benn mandarga bu ñuy àgg euh, message message par bu nu masa bu nu yàgg yoon yónni président Macky Sall depuis 2021 la woon ba léegi ci mois de mars bi bi nga xamee ne lu mat 14 personnes faatu woon nañ booba la ko sénégalais yi waxoon na ko sonn nañu waaye booba dafa mel ne nopp yi dafa xawoon a mel ne lu déggul euh, message bi nga xamee ne 14 sénégalais ay ndaw yu faatu moom ci boppam mu ne dégg naa seen message wax na ko sax moom banaan daal ne nag itam hmm. bu beneen yoonee lii dootuñu bettati xam nga boo nekkee ci dynamique gu xeex hmm. wala dynamique gu fayonto da dem ba principe yi nga xam ne moo gën a nekk li fondamentaux yi da nga koy fàtte

jàppante maa ëpp doole maa yor état état dafa war a nekk lu fort il faut que l'État reste yooyu yooyu noonu il faut ñu koy bàyyi xel ci ne borom doole ji ñaare dana wàccee boppam te du tee am doole. Mm-hmm. léegi nag logique boobu la war a teggi teg na la ci beneen logique boo xam ne bii moo gën a mooy gën a apaiser li nga xam ne mooy situation bi ñu toll parce que soo soo seetloo euh, Macky président Macky Sall ah, man xaw ma ñan ñooy ay conseil en li nit ñi di yëg dëgg-dëgg wala mu xam ko ba noppi bañ cee ba bañ a tànk bëgg a tànqam la wala yu demee noonu parce que lii xew nii nii nii nii nii nii nii nii su fekkente ne li liñ ci laxas lépp ay politique rek tax ñu laxas ko ci te du dëgg kon réew mi doxatul bu fekkente ne ñi ñuy jàpp am lu leen tudde ñii dañoo nekk ci ay rebelle ñi ne nangam am ñu ne déedéet loolu amul ndax nangam ak nangam procureur bi génn wax ñu ne kii dañoo bëgg a taqal fii gis nga yooyu day mujj di dema dema dem ba nit ñi dañuy jaxasoo jaxasoo ba kenn du xam fooy teg sa tànk te ndaw ñi bu fekkente ne ñoom dañoo déterminé wu ne ñoom par force parce que yow casserole yooyu nga doon wax léegi nii man li ma ci gën a jaaxal mooy côté Mbacké ñoom dañoo béy ci guddi gi ba 22 heures hmm. di di di dóor ay kii ay ay kubéeru ci nag yu demee noonu ce qui fait que majorité jeunesse ci gox yu waxaat yu bëri sax ci biir Sénégal majorité ah. jeunesse bi yëpp léegi dafa mel ne dafa am genn kàddu goo xam ne gi Ousmane Sonko lañ ciy déglu mais Ousmane Sonko tey jii dafa mel ne dafa am kattanu am ay taalibeem yoo xam ne bu waxee ñu def bu teree ñu bàyyi dafa foofu lañ toll dëgg neexul mais loolu laa gis parce que bu fëgg rek fëgg ay bool ni ñëpp gën di fëgg-fëgg te moom dong moo ko wax fëgg leen boole ñu fëgg lu ma téeméeri junni nit di fëgg léegi nag kooku itam war la génne waat na le 29 gars yi di préparé waat <laughs> fëgg leen boole ñu fëgg waaw fëgg leen ñu fëgg simplement te kenn ñu baree baree bari am na ci seen yónneeku te dem di fëgg waat léegi te le 29 mu woote waat léegi nan la ñuy def ba trouver une solution paisible boo xam ne bii kenn du fi nekk di tëgg bool ñu xool ñu def dem ci élection yi ku gañe dem sa yoon waaye tëgg leen ñu génn tëgg ah. Mbàkke tëgg la Louga ah. maa ngi doon laaj waa Louga ñu ne waaye gars yi dañuy dem ca mairie ba naan ca buntu mairie ba lan dem ah. naan kalang lang lang waaw te ki leen ko wax mi ngi toog Dakar ki leen <laughs> ah non mais attends yow ki la jox ndigal li moom gisoo ko sax bool yi noonu lay def di nga bool yi nu mu def kalang lang lang di di kalang-lang di dem rek. kalang-lang moom lu ma 200 kilomètres na gaa yi nekk fa di fëgg. <laughs> kalang-lang mooy lan <laughs> mooy. mooy waa Baba wala ñu def. loolu mel ne bu wadd noonu. waaw voilà voilà. <laughs> n'est-ce waaw ah. bool yi daal yëngu yëngu. c'est vrai que nag am na ay médiation yu am ci suuf parce que. Euh, waa CUDIS bu ñoom si si Ahmed Tidiane si Al Amin wax nañu ne xam na ne ñoom ñu ngi dox bu baax a baax ci suuf yi nga xam ne duñ ko mën a dégg euh, xëy na nag du ñàkk xëy na tamit foofu jàmm am fi mais ñoom tamit saa bu ñu waxee aussi comme euh, ñenn jege naa jege naa jege ñaaye les Ousmane Sonko yi wax leen ne wax leen ak ki war a waxal donc du ñun ngeen war a waxal foofu foofu nag la problème bi ne waaw parce mooy da ñëw fekk ñaar ñuy xeex nga bëgg a àtte mm. ba noppi bëgg na yéen ñëpp am dëgg mm. bëgg na yéen ñëpp a tooñ maanaam c'est-à-dire <laughs> xam nga itam ba daal léeg li ma ci jaaxal mooy léeg-léeg sax yàlla xam na ne du ma bëgg sax yenn kilifa yi wax ci mm. ndax bu fekkente ne doo mën a jël position bu leer no mm-hmm. wax nit ki ne ko yaa def nangam wala boog defal nangam mm-hmm. li gën sax defe naa noppi gi mooy li gën mm. noppi gi mooy li gën daal te ñaan ndax léeg-léeg itam ñoom danga leen di dogal ngant gis nga réew mi fi mu toll wax fi yombut mm-hmm. wax fi yombatul de léeg-léeg sax am ñoo xam ne bëgg nañoo wax mais seenu njaboot bàyyi wuñu leen ci mm-hmm. ndax itam wax ba noppi euh, ku la wërta tontu tontu la da ngay wax ba noppi déggee ci loo xamante ne waroo ko woon a dégg mën ngaa wax ba noppi ñu yàq say wax mm-hmm. léegi yooyu yëpp mën naa ragal loo nit ba mu taayee wax waaye nag gannaaw nag daa am looy moytu ba mu toll foofu rik waaye fafal noppi moo gën ngay dox loo xam ne leerul kuréel gii Maodo wax seenu doxin man rafetlu naa ko ndax tur wi rek laa xam gisaguma acte yiñ posé man personnellement yëguma ko waaye dañuy góor góorlu ba sori bépp mbalaanum parparloo ci li nga xam ne moom ngay dox bu ko defee li li maanaam ki ngay jubbanti ak ak message bi nga yor message bi gën a crédible benn bi ci des kilifa yooyu di dox dañuy wax ne ñoom ndawul kilifa diine yu mag yi lañ kilifa diine yu mag yooyu jéego yi président Macky Sall yi def ba am satisfaction ci ñoom euh, nga xamante ne tey euh, maanaam tey tontu li ma doon wax léegi xam nga tey ñëw tiwaawoon tabaxal taxawal fa hôpital buy def nangam milliard nekk niveau 3 loolu tontu la tontu la ci wàllum paj ci ku la dégg xam ne yow mii paj mi yitteel na la gox bi yitteel na la li nga fi def yitteel na la noonu la tontoo ci yeneen leneen lépp loo xamante ne ni am na ci réew mi te ñu war cee tontu mu tontu ci ni mu ci war a tontoo euh, gis nga dañuy wax ne buur boo xamante ne dafa def na ko sud mais nag mais nag Mbacké Mbacké tontu boobu nga wax noonu président Macky Sall mën naa tontu waaw waaw bu boobaa bu bu boobaa itam bu boobaa itam affaire problème xam nga ñun fi ne man jafe-jafe bi ma am mooy président Macky Sall ñan ñoo ndax du ay transhumance xam nga transhumance ku ne mën naa wax que mu wër dëgg ba mu def transhumance parce que transhumance moom la mu fekk gaal gii daw mu yéeg moo tax day toog tegalee tànkam mais damaa yaakaar ne ah si absolument am na conseil am na conseil technique am na conseil ndax xaw ma dañuy wax ci suuf dëggantaan. non am na c'est-à-dire amul benn si na. xam non absolument parce que mais président Macky Sall nag ba lépp jàllee doomu aadama la rek nit la di mais dafa am lu koy metti am lu ko neex di am lu naqar doomu aadama la c'est une créature c'est-à-dire moom ci boppam am na ay conseil yu ko wër am na ay conseils techniques ay conseils spéciaux léegi nag est mi ngi leen di déglu wala est-ce que ji foofu la problème bi ne mais am na ko. ak it yàlla bu mu doon conseil boo nga bëgg la lay conseiller maanaam loo dama lay la neex ba xam li la neex ba noppi ma di la ci conseiller damaa jàpp ne ñooñu baax na ndax mooy tax procès yi mu am ñu mën ko caa doxal waaye conseiller boo xam ne nag day xam fi réew mi toll ak fi jafe-jafe yi toll mu mu donc mu tolloo ñun lu ñu dund mhm. nga xamante ne bu manifestation yi amee mhm. day bokk ci jafe-jafe yi ñu waroon a xëy te xëyuñu mhm. bokk ci ñi nga xam ne seenub liggéey day taxaw bokk ci ñi nga xam ne dans réew mi dañ koy bokk ci ñi koy njëkk a yëg ñooñu itam seen réaction dafa bokk ci yi nga xam ne dafa war a jot jërëjëf Serigne Mbacké Sylla maa ngi nuyu sama xarit euh, Serigne Sam so euh, di ñu deglu jamono ji Serigne Sam ñu ngi laa ziar bu baax a baax <laughs> ak mboolem kilifa yi déglu di ñu bàyyi xel saa su ne euh, gannaaw suba la ñu wootewaat beneen manifestation fii ci Sénégal ndax fu mu nekk nii

ñii kilifa yee kii dañuy nekk nii ci ay par di jaayante doole rek nit yi di ci dee noonu di ñàkk seen bakkan moo tax ñuy compter depuis mais parce xam nga lu ko gën a waral gis nga sax ñu sax li nga wax dafa dafa am lu ñuy fàttali quatorze morts yi dee woon mars 2021 ana atte ba kon lañ ci jàpp da dégg ñu ne diw mi ci la bokkoon te pourtant ay doomu aadama doon di mbëkkante ba am ñu faatu hmm. ba léegi dama xam ne gannaaw suba woote ne waat nañ. waaw euh, léegi nag gars yi ñoom daje. autorisation euh, ou pas bon. jamono yi ñu nga ca procès gannaaw suba encore woote nañ rassemblement ça va être compliqué ah. cette mais très compliqué parce que fi réew mi toll ñoom kay fi mu ne dañoo soxla wax dëgg yàlla nag ku dugg ci seen diggante lijjanti leen. Ah. waaw la yonent yàlla lu waxoon ne alaysa minkum rajulun rachid defe naa loolu fi mu ne réew mi da koo soxla. ndax ndax duñ am kuréel goo xam ne danañ taxaw nag euh, kenn ku nekk ñu ñu jéem laa ñëgganti. ndax ku ne am na looy ràbb loo xam ne xawma ku ciy jariñu waaye askan wi du ci jariñu. Mhm. manifestation mercredi bi di ñëw man tiit naa ci trop ndax euh, yu baree bari. Euh, ndax bu fekkente ne Ousmane Sonko dafa wax ne danaa génn ñu jàpp ma wala wala ñu nangam ma. Mhm. loolu dafa am lu muy tekki lu bari. gis nga yonent yàlla Yuusuf ba mu waxee ne dinañ ma jàpp ñu rey ma. waaw euh, kon mi ngoog. Euh, loolu la wax. waaw yonent yàlla Yuusuf ba mu waxee ne euh, ba mu waxee ne rabbi sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayhi la ko ca borom ba tegal mooy kon mu daal dugg ca kaso ba ba def fa nangami nangami at c'est-à-dire yu mel noonu nga xamante ne nit nit day toll foo xam ne. jàpp na ne man toog ci bitti ñi ma àndal di dem ci kaso bi loolu ak yaafuus la ci man maanaam sama sama njàmbaar mooy dem ci kaso bi am ñoo xam ne dañoo lépp jeex nañ ko jàpp ndax lépp jeex am ko waaw Mbacke tam dogguma la mais tamit jëm ay élection nag ba noppi itam leader yëpp nga dugal leen moo tax ma soxla ku ne dans ce cas là yu noir yoo xam ne doo xam lu muy moo xam nga doo am démocratie dugal dugal leader ci kaso bi mooy li gën a mooy li gën tuuti kon ci li ñuy dal bu boobaa parce que itam euh, réew mi mënuñoo jàpp ñëpp te itam ku jàpp ne tëj ci kaso dana tax yëf yi jeex loolu loolu loolu dese naa jeexal. jeexal du solution moo tax moo tax ma jàpp ne. Euh, dëgg-dëgg soxla nañ daal euh, yeneen kàddu yu gën a kawe yoo xamante ne nii danañ danañ dugg ci lii.